yaaram la wuute naag sagan bamba ko ñaag ci xarnu bi ngëneeli daam yi tuut xel manu ko takk di root mbaa xalimaa ki daa yu xóot na mboolem xarnu lu baax du baax ba weesu mbaax waaye sëriñ bee jàll lu baax baax a yem ci xotti baax baaxaale gaa ودمر الكلا داين تلو ربنا قبل الوصول لنا يا لا يا لا وكلنا عزيما من كل ما لقيتنا وناجنا من بلده yadaara yàlla Mbour yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziare bu baax a baax euh, tey jiital ci nuyoo bi sëñ Modou Dieng mi nga xamante ni moom lañ fi fekk njabootug maam Cheikh Issa Dieng ñoo fi ñëwoon tey ginnaaw bi nga xamante ni ànd nañoo suñuy kilifa muy sëriñ Sidi Dieng moom sëñ Soin bu Dieng ànd ak tamit nga xamante ni moo jiite mbooloo mi ñuy wax jamhiyat tawdihi wa nasri li injaazaati maam Cheikh Issa Dieng muy Serigne Cheikh Dieng moom Serigne Souhaïbou nga xamante ni mbir mi xalaatam la mu dox ci laaj ci ndigal ki nga xamante ni moo fi nekkal maam Cheikh Issa muy Serigne Abdou Latif Dieng di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ko ku wér ak mbooleem njabootu maam Cheikh Issa Dieng yëpp ak mbooleem njabootu yoonu mu ak mbooleem njabootu diine islaam lépp yëpp nga xamante ni ginnaaw bi nga xamante ni sàkku na ndigal loolu ba sëriñ bi jox ko ko looloo jur jataay bi tey biñ ko dalee def ak léegi yàgg na lool ñu war toll nag ci juróom-benneelu édition bi ñëwoon fii tey ci Mbour di siyaar nag ñu fi fekk ñëpp ñëpp ñëpp ku lim nag doo matale ñu yor wàll woowu buñ ci tolloo danañ sant kilifa yi nga xamante ni ñoom lañu fekk si. ñi ñu àndal nag buñ tuddee ñu mel ne sëñ sëñ Sidi moom nga xamante ni doom la Serigne Choy bu jenn ak Serigne Cheikh jenn ak Serigne Abdou Latif jenn ak ñi nga xamante ni tamit ñooy soxna yi nga xamante ni ñu sant jenn lañ. bokk ci njabootug maam Cheikh Issa Diène ku mel ne moo tuddee soxna say Diène ak soxna muslim mën nañu yóbbaale ñëpp am na seex yi nga xamante ni tamit ñu àndoon ak maam Cheikh Issa seen maam ñoom it dañoo ànd ak ñoom liggéey bi waa kër sëñ Moussa Ka waa kër sëñ Ahmad Dam Sourang waa kër sëñ Daaru Ngañ tànn sëñ Mor Touré ak ñoom ñëpp rek koo ci xool njabootam mi ngi ci biir euh, mbooloo mi nga xam ne ñu maam Cheikh Issa ak taalibe yi nga xamante ni fu yoon wuy toll ak fu mu mën a doon ñoo ko fa àggale nga xamante ni loo yëkkati ak lu mu mën a doon ñoo cay jiitu ñoo cay gën a nekk ca kanam kon féetewoo ak taalibe rek moom mooy li nga xamante ni moom mooy li am solo ndax yàlla bi ñu xamee ak taalibe moom mooy lan. taalibe googu nag moom moo tax ñu bëgg a doxal lii jëmale ko ci ca kanam te xam ne suñu xëy suñu gont ci liggéeyal Sëñ Tuubaa rek la war a nekk ndax moom sëriñ bi bayit bi la nekk ci ginnaaw baas bi la lazina saarahu li xidmati falahumu diyaaru wasal jannati lam ci digge ci ku koy liggéeyal loolu kenn ku ne ci àdduna loolu lay sàkku muy texe àdduna ak àllaaxira wax na it ne wax di la xawaahija lazina daamu fii xidmati waxablohoo maaraamu loolu ba tey mën nañ ko méngale mbirum àddina ndax àdduna ku fi nekk di nga am ay aajo yoo xam ne bëgg nga mu faju te sëñ Tuubaa nee na ku nekk ci man di ma liggéeyal suñu borom na féetoo faj say aajo kon amuñu benn gànjar wala lenn lu ñuy liggéey lu lu raw nekk ci toolu sëriñ tubaa te kii ñu koy defal nag ci jaaree ko ci moom dafa am ngërëmal sëñ Tuubaa lu baree bare bare muy maam Cheikh loolu yaakaar naa ne yoonu murit ñëpp xam nañ ko mbooleem àddina ñëpp xam nañ ko mu doon jëfkat boo xamante ni mbooleem ñu ko way mbooleem ñu ko sifaat sifaat yëpp boo xoolee benn la ndax ñi koy way amaana sax nga ne déggantewuñu wuñu wala kii ba muy bind fekkul moroomam ba muy bind waaye boo xoolee kii bayit ba na mu koy indee ak kii ni muy indee bayit bi da ngay xam ne melokaanam noonu kese la kon mu nekk jëmm joo xamante ni bunt bu dal xel la ci liggéeyal ko mu am nag bis bu ñu koy wooteel ci ndakaaru ñu koy wax journée culturelle maam Cheikh saa jenn muy bis boo xamante ni bisam la dañ koy def CICES bisub jàng alxuraan la bisub jàng xasida la bisub wane ko moom mooy kan ndax yam ci wane ko mooy kan rek doy na sëkk. kon li ci toppaat mbooloo mi mbooloo la moo xamante ni li ñu tax a jóg mooy gën a booloo ànd ngir liggéeyal ki nga xamante ni mooy maam Cheikh Issa Diène gën a jëm ci kanam. daam bis bu ñu koy defal ci ndakaaru wax naa ko léegi ñu bàyyi ko xel moo tax ñu ñëw fii seet suñu koo xamante suñu jëwriñ la muy sëñ Modou Dieng noonu doon kenn nga xamante ni fépp fu ko mës a def fu baree bari dana bàyyi koo fii ñëw ba foofu lu jamono xat-xat ak lu metti metti ci moom dana jaayante ñëw mu nekk koo xam ne boroom cër la ci kër gi nekk ku bëgg sëñ Tuubaa ku bëgg xaside yi ku lu baax ñor moo taxoon tey ñu ne moom lañ ko jagleel biñ ñëwee sëñ Modou ñu ngi lay sant bu baax ngan gi neex na lool kawe na lool xéwal yi yaatu na lool la sëñ Ibrahima Diop Masar waxoon gisaat nañ ko fii rabbul jifaani la ci dax ban xadim talaat bil ursi wal laxmi wal axbaasi wa mi kon bagaan yi yaatu na xéewal yaatu na te gan li ci gën a neex mooy mbégte ak ak ak kanam gu leer te loolu gis nañ ko fi bu baax a baax. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di rafetlu jataay bi bu baax a baax di leen dalal jàmm it yéen ñi nga xam ni yéen a jóge ci dëkk yu fasantikoo yi ñëw fii tey. fekk si suñu xarit suñu wóllëre suñu mbokk bi sëriñ Mouhamadou Dieng mi toog di wax ni nit la koo xam ne ci ñun bis bu mel nii bu ko amee du bett kenn ci ñun ndax taxawaay bi ñu ko xamee ci mat ak matale ak fulla ak fayda ak jom ak ngor ak bëgg boppam ak xam mooy ndax yooyu faw mu daje ci nit ki door a matale li mu doon tey ñu ngi leen di seedeel yéen ñi fi ñëw di ay nawley Modou Dieng di mbokki deretam di mbokki dëkkandoom di mbokki taalibeem seede yii ñu leen wax moom rekk la ñuy dund ak moom euh, man maa jiite mbootaayu silmaxa yi nekk mbuur euh, yàlla boole ma ak moom ci ñaari mbir muy mu nekk silmaxa comme man waaye mu nekk murit comme man wëlbatikuwaat bokk ak man ci wàllu deret ci loo xam ni fii la feeñe ci jamono yi ñu xamante ñi nga xam ne nag maay wax ci seen tur muy silmaxa yi fi daje ñépp laa ngi leen di seedeel yéen mbooloo mi fi teew ni am nañu mbégte ci mu jeng mbégte mu rëy rëy ci wàll yépp euh, gis nga ba ci li nga xam ne mooy niveau technologie bii xew ci jamono mën naa ni bépp silmaxa bu ci am yeewute fii ci mbuur mu jëng mii toog moo la ci oriente parce que suñu demee ba ay xaley silmaxa wala di ay magu silmaxa di yor ay téléphones yi ñuy wax iPhone te kenn ku nekk xam ne téléphone yooyu ay dañ koy raay ak loxo waaye kenn du ko bës ak ay tuus silmaxa dem ba maîtriser loolu ba di ci bind di ci liir di ci def lépp loolu mu jëng mii na ci rôle bu rëy rëy rëy ci biir dëkk bi. fu ñuy ñëw. fekk fa njabootug sëñ Mor Ngoone Fall yaa leen war a dalal loolu rek lay mottali ba léegi waaye xam naa ni yéenam yegg na te loolu mu waxit lu mën a ne la ndax diggante sëñ Mor Ngoone ak sëñ Ansa Jenn ñu bokkee ca Kajoor sëñ Mor Ngoone nijaay ci moom waaye ñu bokk wëlbatiku Sëriñ Tuubaa boole leen ak kóllëre gu dëgër ñi di ko sàmm ba sëriñ ba sëñ ba Cheikh saa Diène yëkkati doomam jox ko fii may wax yow nii sëñ Mor Ngéna jenn doom ju góor la dese ci kaw suuf Cheikh saa Diène far la tudd mooy ab xalifaam Cheikh saa Diène moomu bi muy dal jàng ndeyam soxna Ami Diène dana ko tey ngay dal jàng ñëwal jaari ci sa baay mu wax la ku lay mu dalal la jàng na ko nag soo demee ka lay dalal lum la wax nanga ko wax ba mu ñëwee sëñ Mor Ngoye daan ne ana Mor Jooja Fall ndax sëñ moor Jooja dafa bokk ci ñi nga xam ni sëriñ Tuubaa moo leen daral alxuraan waaye mag ñi fonk giñ fonk sëñ Tuubaa seen doom sax bu jaaree ci sëriñ bi daanaka bi sëñ Mor Jooja ñibbisee ci këram ku fa mata dal moom la lay jox nag ngir li ko sëñ Tuubaa dalal Baye seex Issa moom bi mu ñëwee sëñ moor Jooja mu defaru bindal ko ne ko Issa mu ne ko Mbàkke mu ne ko bismillah waxal baa Cheikh Issa ne ko bismillah waxal baa mu ne ko moom waay Issa dama ne la bismillah waxal baa Cheikh Issa jenn faal ne ko bismillah waxal baa nee na mu tekki cëwri gi mu takkoon daat ko koy dóor Baye Cheikh Issa nee na ma man kenn yilifuma ku dul Serigne Touba moo ma ko wax. na ma bi ma dóoree li may néew noo doole damaa wuti lu ma ko dóor. fekk muy bant gattax ma ritax ko ko nee na mun a cëfit sama loxo dem man ba ci sëñ Mor Ngoone mu ne ko mu ko faal mun ne ko Isaa dama koo jàngloo nanguwut a jàng mu ne ko bàyyi ko fi ba mu ko laajee lu la ko lu la sa soxna ami waajalee sa ndey mu ne ko def na ma tey ngay dal alxuraan boo demee ka yi dalal lum la wax wax ko lam ma wax rek laa wax mu ne ko dellul danaa gis sa ndey mu waajalee neneen bàyyi seex sëñ seex isaa jenn ci boppam maam seex isaa jenn ci boppam moo daja jëwriñ sëñ Mor Ngoone Faal ju mag ca gaar ba mu laaj ko mbokki daaru faal paafam wax ko mu ne ko ana sëñ moor Ngoone mu ne ko ma nga fa mu ne ko ana isaa sama turandoo mu ne ko manga fa mu ne ko dégg naa de ñu ngi koy sonal ci am njàng waaye boo demee nga waxal ma sama soppe ba sama xarit ba sama nijaay ja sama mbokk ma sëñ moor Ngoone Faal nga ne ko isaa bu mu ma ko sonalal ci am njàng na ma ko bàyyil noonu wax bu waxtu wu màggee te war a xam lu mu war a xam lu mag ko warloo Baye Cheikh Issa Dieng moom boo toogee moom bu duggee ci xelmul xadis da nga naan fiq rek la xam bu nekkee ci alxuraan da nga naan moom rek la xam bu duggee ci tasawuf da nga naan moom rek la xam te maam seex sa Dieng moo ko dig mu màgg mu jox ko xam-xam boobu. ko fii ci Mbour ngir yaatal kuréel gi. ci ndigal li nga xam ni moom la leen ñu Abdoulatif Diène jox dama bëgg képp ku fi teew te sama jëmmu tax su la ko yàlla man loo nga wecc ko ci carte de membre yi carte bi nag 1000 francs rek lay wecc ko am na itam carte barkeeloo amul limit loo joxe ñu jox la carte barkeeloo carte de membre yi moom bëgg naa ñu wecc ko bu baax de waaw bëgg naa daal ñu wecc carte de membre yi carte de membre yi 1000 francs lay jar su su suñ wecc ko ba noppi sëñ Ibrahima Diop bu bu dara leen jox ni nga xam ne noonu lay doxe incha allah. yaatal bi nga xam ne nag ñi ngi koy def di ko def ci gox goxaan yi di ko def ci gox yi fasantikoo yi ci ndakaaru ak ci région yi ba tey ñu ñëw fi mbuur moom ndigalam la ndax moom moo ñu digal ñu yaatal ko dem ci mbokk taalibe yi waxataan ak ñoom wax leen solos jamiya bi jamiya bi nag du lenn lu dul liggéeyu maam Cheikh Insa Diène bi nga xam ni waa jamhiyatu tawdi wa nasri li injazati maam Cheikh Insa Diène la ñu sant jox leen ndigal ñu yeesal ko maanaam wisaare ko jàngale ko ba ñëpp mën cee jariñu loolu mooy sababu jamiya bi ànd seeg sëñ Cheikh nga xam dañuy amal journée culturelle boo nga xam ni ca Ndakaaru lañ koy amalee muy le 28 janvier incha allah mu nekk sixième édition bi mais jamie bi il ñu xamal leen aussi ni que maanaam yemul rek ci journée bi day jël journée bi ndax maam Cheikh Issa Diène lañ bëgg fësal wane ko ba ñëpp gis ko ca kaw barke Cheikhul ndax lim fi liggéey dañ ciy teg baaraam benn anecdote rek laay wax ci li nga xam ni mooy liggéeyu maam Cheikh Issa Diène benn taalibeem benn taalibeem bi ñuy wax sëñ Mbay ture moom moo defar jumaa joo nga xam ne ca Njenn Lagan ëpp na 2 milliards benn taalibe Afrique de l'Ouest boo doon xool jumaa ju mel noonu doo fi gis mais benn taalibe maam Cheikh Issa Diène moo ko def benn taalibe muy Mbay Touré loolu rek dafa doy lépp ki ñu am xamuñu mooy kan yàlla xam na ko amul ay tànki ginnaaw ay tànki kanam la am ba tax na képp ku yàlla dimbali ba nga bokk ci mbooloom da ngaa war a sant bu wér ndax ñëpp bëggoon nañu bokk ci waa kër maam Cheikh Issa Diène ndokk yàlla ñun biñ ci bokkee ak waa jamiya bi yëpp. ñi ngi doon wax léegi ni que liggéeyu jamiya bi jël na maanaam du journée bi rek parce que il faut ñu leeral leen loolu tamit ndax fu mel ni ndakaaru bëgg nañu maam Cheikh Issa Diène am fa. màkkaan am fa kër te comme moom mooy borom lagan ak lëgën dañoo bëgg fi nga xam ni moo gën a cher ci ndakaaru foo xam ne mètre carré bi moo gën a cher muy almadi foofu lañ ko bëgg a utal kër boo nga xam ne dina def plus de 2000 mètres te loolu ñu ngi ciy dox di ci wax incha allah léegi suñu borom sottal ko bu soobee yàlla. jamiya bi tamit bëgg na yaatal liggéey bi maanaam ci wàllu ay forage ndax dëkk yi nga xam ni maam Cheikh Issa Dieng sancoon na ko yëpp bëgg nañu faa dem nemmeeku mbooloo ma population yi nga xam ñoo nekk foofu ba samp fa ay forage yoo nga xam ni dina mën a alimenter dëkk bi ci ndox bu ko defee ñëpp jariñu si dinañ def tamit lu ñu naan ay école ay école yoo xam ne ay daara la ay daara moderne yoo nga xam ne ay internat lay nekk mbokk taalibe yi ak suñu tuut tànk yi di fa di fa gëstoo xam-xam di fa jàngee xam-xam dinañ def tamit loo nga xam ni ci wàllu mbay lay dem muy liggéey boo nga xam ni dañ koy yaatal lool ba nga xam ni maanaam dina am autosuffisance maanaam jamiya bi dinañ mën a financer seen i activité parce que euh, loolu du ndaw ndax financement dafa jafe financement dafa jafe mais ñun dañuy am ay pexe yoo nga xam ni dinañ def le tout pour que maanaam lépp loo nga xam ne dañ koy songati nga xam ne ci jamiya bi lay jóge loolu incha allah ci la ñuy dox guddi ak bëccëg di ci sant bu baax a baax ndax occasion la tey ñu sant mbooloo mi yëpp jamiya bi kenn du nelaw guddi ak bëccëg ñëpp a ngi daw ñëpp a ngi daw ngir ngir ngir liggéey bi taxaw alhamdulilah ñi ngi sant ñëpp di sant bu baax sëñ Modou mi nga xam ni moom la ñu fekk si tey du ñu noppi di ko wax ndax jëwriñ la ci daara ji am na pasteef am pas-pas am engagement boo nga xam ne bu mat sëkk la yàlla xam na te boo foo geestu gis ko. kon defe naa loolu mbooloo mi dégg nañ ko sëñ Modou daal nee na toogaay bi ñu toog fii mbooloo mi nga xam ni moo fi teew bëgg nañ le 28 bu jotee incha allah ñëpp teew ca ca journée ba moom la ñuy amal ci CICES incha allah muy sixième édition bi. waaye ku wax journée da ngay wax ay moyens am na ñu ñoo nga xam ni suñu borom boole nañu ak ñoom muy ay kilifa yoo xam ni sëñ bi boole nañu ak ñoom muy mbokk taalibe yi tamit ñi nga xam ne ñoo jëmmal jamiya bi ñoom aussi tamit ñi ngi ciy def lépp lu ñu mën ndax dafa am ay cotisation yoo nga xam ni moom la ñuy def weer wu jot mooy li ñu doon wax sànq maanaam ay carte de membre parce que képp ku bëgg bokk ci mbooloo mi da ngay am lu ñuy naan carte de membre carte de membre mooy justifier sa nekkin ci mbooloo mi mbokk taal yu bëri tey am nañu carte de defar nañ leen ko ba pare sëñ Cheikh signé na ko am naa ne incha allah après dinañ leen ko jox su ko defee charte carte de membre yi mooy lan carte de membre yi 1000 francs lañ koy jaaye lañ koy wecce koo dañ koy renouveler chaque année parce que boo xoolee ci carte de yi am na ay cage yoo nga xam ni pour renouvellement renouvellement la première anne ba quatrième année boo jëndee carte de carte de membre 1000 francs ba pare dañ koy renouveler 1000 francs par année chaque année da ngay ñëw présenter carte bi ñu cacheter case yi maanaam répertorier ko ci nga ci li nga xam ni moom mooy moom mooy suivi wu jamia bi su ko defee nga joxe 1000 francs góor ñi noonu jigéen ñi noonu am na tam lu ñuy wax cotisation mensuelle maanaam góor ñeenti téeméer lay cotisé par weer at mi nekk vingt quatre mille bu dee suñu mbokk soxna yi ñoom ñaat téeméer la ñuy cotiser at mi nekk douze mille wax dëgg yàlla pas Pastef dëgg dëgg dëgg lañ ci am yàlla xam na ko mu nekk nii bi ñuy def situation bi maanaam soxna yi ñu si bare bare bare bare mën naa ni quatre-vingt-quinze pour cent yëpp matal nañu seen sas te loolu loolu lu am solo la ndax moom ñoom dañuy gis seen taxawaay ci bis bi taxawaay bu mat sëkk la ñuy am ci bis bi su ko defee ñu xamee ko noonu xam ni ñun amuñu kenn ku dul maam Cheikh Insa Diène ba tax na dañ koy liggéeyal ba faw bañ fiy jógee incha allah yàlla na jeex su ko defee nag am na ay magasin yoo nga xam ni tamit maanaam lépp rek ci am ay fonds parce que ku wax bis da ngay wax fonds bis bi édition bi passé muy édition 2023 ñi ngi tablé woon ci 12 millions mais boo xoolee li ñu dépensé 12 millions 700 mille la day wane rek li muy wane mooy maam Cheikh Insa Diène amul ay tànki ginnaaw ñu ngi tablé 12 millions am million millions cent mille te at mi at yi weesu aussi tamit noonu la demee boo tablé 5 millions da ngay am 7 million waaw loolu loolu il faut que nit ñi xam ko bu baax a baax a baax baax ren nag édition 2024 mu nekk boo nga xam ne bu yéeme lay nekk ndax dañ ko tuddee maam Cheikh Anta borom gaawaan ñi ngi tablé 15 millions. te 15 millions nag faaw ñu def ay jaayante yu ama am solo. ku tënk mbiru Cheikh Issa bëgguma caa sori ndax wax naa suñ naan <laughs> li ko sabab <laughs> moo di rek wane ni ku mel ni moom seen suñu borom subhanahu taala ni muy doxalee wala li mu santaane ci liggéey muy bu àdduna bi ak ëllëg nga xam ne bi suñ Tuubaa taxawalee jumaa ju tedd jii di njaareem jël architecture bi takk ko ci loxoom personnel bi fa doon xëy ak seen ay charge mu jël ko dénk ko ko loolu li koy waral mooy xam ne li mu koy def loo mën na ko loolu daf ñuy jàngal li ñu xam ne nit doone tey rek laay lijjanti wala nga ne ëllëg rek ñaar yëpp ngay boole ndax ndigalul suñu borom la wabtaxi fi ma ataka laahu daaral axira wala tansa nasiibaka mina dunya la ñu wax loolu mooy waraloon bu dee ci mbiru nga gis ko ci ci architecture nga xam ne yaakaar naa ne nit dina jàng sax ba njàngam kawe lool te du ko mën wante suñu borom dimbali ko ndax suñ tubaab lépp lu mu digal nit rek day fekk ne loola day xool ba xam ne mën nga ko boole laak jumtukaay digal la ko looloo waraloon bi ko sëriñ bi dénkee liggéey boobu mu réussir ko ba fu may waxee yow mënuloo gisati plan bu jumaa njaareem bu mel noona plan architecture bee Sëriñ Tuubaa la mu ca dugaloon loxo moo tax lu mu laal day wuteeg la mu laaloon foofu nag li may soññaatee sama bopp dégg ko sëñ Ibrahima Diop wax ko léegi moom ma koy nuyuwaat bu baax a baax di la nuyu yow tamit sëñ Ibrahima béy ndax liggéey bi biñ ci bëggee bokk it da ngeen ñu cee boole ndax nit mën na am yéene yéene day dugal borom fu ne wante mën nga am yéene ba noppi réaliser sa yéene jooju am ñaari pay bi ma ci bëggee bokk it bu ma ñëwoon ngeen tënk ko su boobaay dañu yéene ga te toog wante yàlla dogal na ne bi ñu amee yéene bokk ci da ngeen ñoo yaatalal ubbil ñu bunt yi te la ma doon wax keroog rek ni Sëñ Tuubaa ba mu ñuy jàngal ca naju xadar xaaj dafa wax ne wa man talaba am la wa jadd wa jadd képp ku jóg ngir sàkku mbir bu farloo mbir mooma da koy am te lii luñ yàgg di sàkku la luñ yàggoon a bëgg a defal Cheikh Issa Diène la dama ko daan wax soxna may ne ko man daal balaa ma doon gën a kontaan ma dem def documentaire ma def ay jour ci àll bi nga xamante ne damay jóge Dakar def ay fan duma fanaan sama kër di guddee sangu wala di guddee reer ngir bëgg a xam jaar-jaar ak dëkk yi nga xam ne moom sancoon na ko moom Cheikh Issa daan waxoon nit mën naa doon mbooloo te du tax mu am njariñ mën naa doon ñu néew tamit te yàlla dogal mu am njariñ muy léeg-léeg ñuy wax qualité ak quantité mën nga dajale saal bi fees dell te kenn ku ci nekk bu demee amul leçon bu mu jël pour yóbbaale ko looloo taxoon ñun ñu ni ci documentaire bi ñu bëgg def nga xam ne tey mooy bis biñ ko ubbi te lii tamit tawféex lañ ciy defaat nañ ne bi sëriñ bi ñibbisee daf ko woolu laaj ko ni ko Aïssa ana bi ma demee ci tukki bi loo fi nekkee woon mu ne ko mbàkke dama daan def rek fu ñu lay waxtaane ma toog di déglu lu ma am jox leen bu ñooñu noppee ma jàll ci ñi ca des mu ne ko looloo waral ci kër gi lu ma romb mu ne bul fàtte saa ak waa këram loolu nag daf ñuy jàngal rek ni war nañ gën a góor góor lu ci jëf jëfal yàlla boo koy jëf xëy na dana metti mën naa am dañ ca wéet waaye di nuyu te di wax ci turu suñu kilifa sëriñ sii di Dieng ak sëriñ Cheikh waaye di nuyu itam Serigne Naar ak Serigne Mbay Sourang ak Serigne Modou Kañoom ak soxna yi ne ci jataay bi soxna muslimatu ak soxna Saynabu ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp boy wuñu kenn waaye di nuyu bu baax ki nga xam ni moom lañ fekk si fii te bis bii bokk na ci li ko ko may mooy pas-pasam ak yéeneem ak bëggam te foo ko fekkit day bëgg a ne ca kanam rek ci lu baax waaye du nangoo des ginnaaw mukk ak rakkam jin fi fekk di Serigne bu ak soxna yi ne ci kër gi yëpp ñoo leen di sant bu baax di leen gërëm di nuyu waa mbuur yëpp ci seen tur a ah, mbuur nag yàgg nañu am tawféex ci Cheikh Issa mën nañoo wax sax ne yàgg nañu am tawféex ci Serigne Touba ndax xam ngeen ni suuf si ñuy tudde xabbaan euh, suuf la soo xam ne sëriñ Touba daf ko doon joxoñ ci sababu sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke Xaban mi nga xam ne moo fi moo fi njëkk doon fi liggéeyal sëriñ Touba di ko ko yóbbul moom moo doon def bu taalibe yi indee am mbay ci kër sëriñ bi ci njaareem dañuy gis ne mbay mi indi maanaam dugub ji indi mooy dàq ci dugub yi ba sëriñ bi di wax mag ñu ne leen Ahmadou Ndumbe de xaw ma fu muy bayee waaye mat naa nemmi ko loolu moo sabab borom daaru ñëw na fi maam Cheikh ñëw na fi Serigne Saleh ñëw na fi ak ñeneen ak ñeneen mam Seeraam Fall boo demee ci wàll yëpp da gis seeni suuf suuf mu nekk suuf soo xam ne tamit yàgg nañu am tawfeex ndax euh, dunduk Cheikh Issa dafa nekk ay jaar ay maraaxil yu bari mooy nit fi mi jaar yépp rek jàng ak sàkku xam-xam ñëw ci Serigne Touba ak liggéey tasaare marxala yi nag bokk na ci marxala marxala bi nga xam ne moo ci ëpp solo mooy étape bi ci ëpp solo mooy xàbbaan ndax xam ngeen ni fii la doon defee tarbiye gu metti gi eh, ñu di fi bàyyee lu ñuy yóbbu jumaay njaareem eh, ba ab taawam di Cheikh Mahamadul Amin fii la doon tur aw ñaqam ci suuf si kon xam ngeen ni étape la bu ama am solo ci dundu boroom jenne ci diggante ay daaru jenn ak njarmeew ak teen tubaab ak i taaxum ak i njiite dëkk yooyu yëpp ay dëkk la yoo xam ne buñ ne mbuur rek ñoom ci lañ bokk kon nag yéen ñi fi dëkke di fi yëngutoo ngeen xam ni seeni waajur ak mag yi borom jenn yàgg nañ fee tuur seenu ñaq kon nag bu ngeen fi tuur seenu ñakk ngir dabu wërsëgu àdduna bu ngeen wëlbatikoo delloo ko ci toolu maam Cheikh Issa ba seeni pas-pas mën na leen a may ngeen yéeg ca mag ñooña ndax alxaqnaahum bi durriyatihim la suñu boroom def ah, ci liggéey boobu nag gis naa ci téere yi eh, ci affiche bi nag suñ ginnaaw xam naa ci la ñu inspiré wu ngir wax inna alladina saarau fi xidmati fa lahum diyaaru wasal jannati kon baatub xidma boobu nga xam ne moo ci nekk te sëriñ bi wax ne ñiy njëkkante ci di ma liggéeyal bu ëllëgee ca digg àjjana fa la ñuy am ay kër maanaam fa àjjana ya gën a tubaarkàlla ñu gis Cheikh Ibrahima Diop al Mashari mu woy Serigne Issa ay bayit yu am solo dañ cey jukki ñaari bayit ya jiitu rek jéem ko firi ndax xam ngeen ni jataay bii ah, suñu kilifa suñu mag di sëriñ Moussa di suñu royukaay moo ko daan teewe waaye nag comme fàddu na tey ndax ay sabab ndax ah, bu yàggul rek la demoon Touba ci teewaayu daayira boobu ñu tuddee soppee maam Cheikh Issa Diène doon fa def waxtaan xaj na loolu coono yi jàpp ko ba teewul Sëriñ Ibrahima Diop almashari dafa wax ne xaazal mafaxira isa jenn zu karamin wa faaza bil qurbi wa ridwani bil xidami dafa wax ni xaaza laq na al mafaxira ndam ya maanaam ndam yu bëree bëri waxut sax mafaxira ay ndam dafa wax ne al mafaxira maanaam lépp ndam loo xam ne mus nañ koo teg rek dafa wax ni Cheikh sa moom laq na ndam yëpp ngeen baal ma ci misaal mi bu fekkonte ne ci wàllu lii ñuy wax football la dañu mën a wax ni coupe yi tegoon ci at mi yëpp Cheikh Issa jël na ko ndax li ko waral ci jàngkati arab yi al alif ak laam gi ne ci baat bi loolu lay signifié maanaam ndam ya lañuy ñu ndam yëpp lañ ca tegoon lépp saa jël na ko loolu la Cheikh Ibrahima Diouf wax ndax kiy bind tamit dafay baax euh, point yi mu dugal ci mbind mi nga xam point bu ci nekk li mu tekk waxut ne xaaza mafaaxira waxut ne xaazal xaazal faqru xaazal mafaaxira la wax jenn zu karamin mu ne wa faaza texe na tamit bil qurbi ca jige gi nga xam ni moom la jige Serigne Touba maanaam nit la woon koo xam ni ku jige jige Serigne Touba la ci zahir ak batin loola nee na daf caa texe maanaam daf caa dema ba lépp luñ cee sàkku rek am na ko wa faaza bi qurbi waaye wa ridwaani waaye tamit texe na ci ay ngërëm te xam ngeen ni ngërëm lu lu lu jafe la ndax suñ borom wax na ni wa ridwaan min allahi akbar dalika huwa al fawzul azim nee na ngërëmul yàlla moo gën a mag lépp te buñ ne diw làq na ngërëmul Sëriñ Tuuba mooy làq na ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala buñ ne diw làq na ngërëmul Cheikh Isa mooy làq na ngërëmul Sëriñ Tuuba moo tax fim mu lu baax ak silsila la maanaam ak ceen la gu ñuy jàpp rek jàpp fii jàpp fii moo tax ba jamono jii nga nekk di dund ka nga xam ne mooy sa kilifa maanaam moom la la sëriñ bi booleel mu nekk sa kilifa ci buntu kër Cheikh Issa kooko nekk sa kilifa ci buntu kër sëriñ Touba ba ne mi egg ci yonent bi ak yàlla noo ko sàkkoo ci moom rek ëllëg ñoom fu ñu nekk mën nga faa nekk ndax ab silsila lay doon kon nag maam Cheikh Issa làq na ak ak jige sëriñ Touba waaye làq na itam ay ngërëm yoo xam ne yooyu yëpp nag moo ko amee bil xidami baatub xitma bi daal di ñëwaat maanaam nekkut jëmm joo xam ne dafa ñëw rek jébbalu ci Serigne Touba sëriñ Touba defal ko ay may mu dellu tàggaar toog déedéet ndax moom xam nga ni lépp loo xam ne dégg ngeen ni borom njenne daf ko defal Serigne Touba xamal ni loola ginnaaw bi ko borom bi ko Serigne Touba seexalee boole ko taalibe la ndax ca jataay ba la ko booleeg Abdullahi Sori Diop loolu dafay tegtale ni sëriñ bi defal na ko la mi defal ñëpp nag ak farloom akuk takkoom akuk yeewoom nag moo ko may muy daw di daw di daw di daw. ba boo xoolee ña jiitu woon gis ko ci seen biir mu mel ni ab drapeau loolu la loolu la wax wa naala ma naala min asraari tarbiyatin xata gada bayna ahli saqika al alami te bi muy ñëw ci sëriñ bi it doon mag fanweeri at ak ñett rek la am moo tax bi ko Cheikh Ibrahima Diop almasani di woy fatan la ko tudde maanaam ab xale ab ab jeune la ko tudde kon ki ki bind ci moom xam na ci ki bind kan la mu wax ni xibbul xadiimi moom mooy soppeeb sëriñ Touba. te xam ngeen ne almahabatu moom it bokk na ci étape yi sëriñ bi jaar bi muy woy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wan cofeel gum am ci moom bokk na ci étape yi ëpp solo maanaam ci baat yi ëpp solo ndax euh, bokk na ci xidma bokk na ci madh bokk na ci mahabba moom nag loolu sëriñ bi amoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf am ci sëriñ bi mooy mooy Cheikh Ibrahima Diop Masari dafa ko tuddewaat xibbul xadimi maanaam moom mooy soppeeb sëriñ Touba moo tax lu riis a riis la bind ci ci borom njenne ba tey dafa indiwaat alif ak laam gi dafa mel ni moom da koo jagle cofeel gi mu am Sëriñ Tuubaa moom da koo jagoo kenn fekk ko ci xibbul xadim yi mu ñëwaat daal ni wa misbaaxu tariqatihi baatub tariqa tamit mu daat ci tënkaat li ñuy wax damir maanaam mu taqalewaat ci beneen baat boo xam ne dafa wax ni moom mooy làmpub yoonu Sëriñ Tuubaa léeg-léeg nag nit ñi dinañ koy firi xaj na dañ dul ñemeen jaar ci digg bi daal ni ab la ci yoon waaye dafa wax ni moom mooy làmpub yoonu Sëriñ Tuuba way misbaaxu tariqatihi mu ne waat bi histanaarat liman yamshi bila zulami nee na képp koo bëgg a dox ci yoon wi te dox ci kaw leer ci làmpub Cheikh Issa boobu ngay ngay leerlu ki ko doon bind nag du jaahil boroom xam-xam bu mag la nit ku àgg ci yàlla la koo xam ni moom bi muy ñëw ci sëriñ bi sax xam-xam la doon bàkkoo ku feesoon dell la kon nag kooku bu bindee ci arab ginnaaw ci kanamu sëriñ bi la doon bindee kenn dootu ko mën a codiser te it moom mooy ki ëpp lu mu tagg sëriñ Touba ci ci ci loxol arabiya kon nag bu wooyee loolu ci science xam na li muy bind nee na moom mooy soppib sëriñ Touba waaye mooy làmp bi yoonam bi kon nag ñi am tawféex yi nekk ay taalibeem ñoom seenub sëriñ moo yor lamp bi kooku kon xam nga ni ku jaar ci moom ku ànd ak moom di nga jaar ci leer keneen ku bëgg jaar ci leer it Cheikh Ibrahima Diop nee na nga di nga sàkkoo ak leer ci maam Cheikh Issa Diène kon nag loolu foog naa doy na sëkk léegi nag li ci des mooy nit ku ne jamono ji dafa soppiku maanaam soppiku yi dafa bari ni sëriñ bi moom binde woon yoonu murit wax ni nii lii mooy yoon wi léegi dañoo dem ba jamono nit ku ne dafay am nu mu koy gisee da ngay dem ba gis nit ñi dafa mel ni yoon wi ñoom ñoo koy rëddal seen bopp maanaam yoon wi ñu bëgg jaar ñoo koy tànnal seen bopp te loolu bu amee rek bay boo xam ne nag saw yoon nga jaar yow sa yoonu bopp nga jaar waaye jëratoo yoonu sëriñ ndax yoonu sëriñ bi moom mooy yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mag ñi ci lañ jaaroon kon nag képp koo xam itam bëgg ngaa dem da ngay fexe ba gëstu yoon ba mu leer ci yow nga jaar ci yoon wa nag ay waxa ci gën a néew maanaam la ci ëpp ay jëf la te dañoo nekk jamonoy wax ak jamonoy wanewu ak jamonoy fés ak jamonoy propagande waaye sëriñ Issa moom yàlla musal na ko ci loolu sëriñ bi musal na ko ci loolu moom liggéey ak jaamu yàlla personnalité am ak dignité ay jëfam moo ko daan wane moo tax kenn mësu koo yab du ko mës a nekkal du ko ko xam di ko dégg rek maanaam ku ko mës a dégg rek da nga koo naw sopp ko kon nag ku bokk ci moom dangay fexe ba loolu mu doon doxee nga incarné ko maanaam fexe ba nekk nit ko am personnalité fexe ba nekk nit ku am njariñ fexe ba nekk nit koo xam ne ay détails ak i coow du la sonal bu boo waree tontu ay wax sax bàyyil ba mu jar ko loolu bokk na ci lii indi valeur nit waaye bul def lu xew ci jamono ji rek nga jóg ni teel rawatina nag nga am kilifa moom goo xam ni ñëpp respecté nañ ko te kenn mosu koo dégg muy wax ci ay ay di dem ci ay xew ak di wax ci ay média kenn yebu ko muy Serigne Abdou ku am ku mel noonu nag mu ne sa kanam yow day baax nga xam ki nga doon waaw ko defee nag nañu góorgóorluwaat jéem a xam sëñ Ibrahima Bey daf koo junj léegi mooy moom boo gisee bokk na ci li mu mu jëfandikoo fas yéene ab taalibeem day set wicc mu doog koo jox Serigne Touba loolu respect bu mu jox sëriñ bi te noonu la doon dundeek moom it balaa mu fiy jóge ci zahir maanaam fexe woon na ba lépp lu mu jox sëriñ bi qualité lay doon bu dee matériel bu mu man di doon qualité lay doon léeg-léeg matériel ba mu indi sax du doon bu am ba mu demee ba fàdd itam noonu la fas na roo yi mu joxaat sëriñ Tuubaa qualité lay nekk te moom dafa xool li yàlla bëgg ci ab jaam moom mu bëgg ko ci ab taalibam ndax yàlla moo ni yawma laa yanfau maalu wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim bisa ngi ñëw boo xam ne alal ak i doom du amal njariñ nit waaye qalbun salim mooy mooy amal njariñ nit mu yàlla seedal yonente yàlla ibrahim ni moom am na ko wa jaa rabbuhu bi qalbin salim moom indi na xol bu la sëriñ ñi saa nag bu nee danaa fexe ba képp ku may jébbal sëriñ Touba da ngay seet wicc bu boobaa la yàlla waxoon lay indiwaat moo tax ñu boo leen boo boo xamee alxuraan rek saa nu waxee nga man koo peese kon nag bu jàppee nit di ko tarbiya ba mu set ci noonu ba dem am na tawféex bu ko nit fekkut tamit di ko roy di jaar ci ndigalu kam nekkal ba dem set wicc am na tawféex buy dem di dem di dem nag genn wàllam set genn wàllam tilim wala mu set dese tuuti Cheikh Issa dina fexe balaa muy fàddu rek set wicc dégg na am na nit ku nit ak góor gu nekkoon njenne goo xam ne ku bari le la woon ku bari alal lool waaye dafa doon wax ni moom da doon bàkku sax ci alal ju bari ji di wax ne diw de ku koy miraas dina am problème ndax bari la gum bari la waaye wax nañ ne balaa mu fiy jege war na am mbaam di wër di yalwaan kon kooko xam nga ne am na lu borom kilifaam am na fu mu moom kon nag guddi na te mbokk yi fi ñu jëm sori na ñoo ngi jégalu bu baax ci kàddu yi nañ gën a góor góorgóorlu bu baax rek te xam li yàlla bëgg ci ñun moom la sëriñ bi bëgg ci ñun moom la maam Cheikh Issa bëgg ci ñun ñun ñii kenn ku ci nekk sa kilifa loolu la bëgg ci yow bi ren nag mu nekk bis boo xam ne dañ koo tuddee itam nit koo xam ne dafa nuroog moom lu bari boroom ngërëm ak dërëm waaye nekk nit koo xam ne tam na ma ko waxee woon ci jàmm a gën da berndeel nañ ku ne waaye moom dana gën a jafe berndeel ndax euh, ku xam bernde la muy maam Cheikh boroom borom gaawaan léeg-léeg dañuy netti la xissa boo xam ne bu siiw la euh, mënuñoo wax ne nag dafa wér waaye bu siiw la te loolu xadis sax daf koy daf koy daf koy am mooy maam Cheikh Anta manes naa am luñ ci jàng moo tax ñu koy nettali benn taalibam boo xam daf koo sonaloon lool fu ko gis rek di ko wax ne ko eh, maam Cheikh damaa bëgg nga gane si ma fu mu ko daje moom ci xew rek di sàkku sëñ bi gane ko maam Cheikh Anta daat koy jàppal ngan waaye mboolem kum xam ci réew mi rek yónnee na fa ne leen bis sàngam damay gane ji diw alaaji góor a kam bis sàngam laa koy gane ji gaa yëpp waaj taalibeem yéeg soppeek yëpp ñu ñëw ca dëkk ba gane si boobu nga xam ne wër na fu ne ni seex du ko ganes a ah ngóor si gan ñi ñëw dal ci kawam mu génne liine woon si kër gi yëpp defar ko dëkkandoo yi ku ne indi la nga am ba dëkk bi daj mu wër tund wi ñëpp ku ne la nga amoon nga indi ko te taxul ngan gi daj ba seex tàggoo ca ëllëg sa am ko fa jaar naan ko maam seex doon na wax naan dina fi del si fan yi mu ni ah dënn bi daal di rëcc <laughs> damay ragal nag ñun loolu moom bañ ñoo daal bañ ñoo daal ci journée bu ñu waajal ko bu baax fexe ba 15 millions yi romb bu ko defee ñu mën a rey lépp daal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. te Serigne Abdoulaye Dieng tudd ko daayira boobu nag yàlla dafa dogal man mag ma dem ba ci kanamu Serigne Abdoulaye ginnaaw bu génn ci xelum soxna Ngay Sall mi toog ak Baye Cheikh Mané ba ma ne ba ci ma ne ko. ba mu ma nuyu ko toog ba mu ba waaj a dem ma ne ko sëñ bi kat loolu man damaa nekk buur danoo bëgg a taxawal nag daayira teewaay taaj genn fekk sax benn anecdote ci biir bi dama ñëw nuyu ko toog benn waaye bu ñuy kii bi sàll daal ni ko kii de Modou Dieng la tudd mu ne ko moom doomu undi génn ji ma am ko maanaam jëlal na sama duwaay sama duwaay sax la tudd ko doon ñu jënd ji ma am moom waaw loolu moom am na doon ci jotaay bi ma ko waxee tam mu daal ni ma daal di jënd ak génn amoon na ko waaye daal mel ni xam naa dox ma laa xaw a kii ba dégg déggatu ko moom waaye de ñi ngeen taxawal su ngeen demee dinaa leen dinaa leen ci ñaanal ma dana ma jox naa la ci ndig jox naa leen ci ndigal tey def dinaa leen ci ñaanal ba keroog bi koy ngi ñoo dama ko woo téléphone ni ko sëñ bi kat la la ma doon wax gis sàngam lañ jàpp réunion ba ba mu toll ne waaye yow moom buur nga féete yow daal buur nga féete rek ma ne ko ko kon daayira la boo xam ne li ñu bëgg a wax mooy daayira bu am ndigal la daayira bi itam li muy mooy gaaw bu jot lañ koy rajo ci daara ji sëñ Modou nekk ñaari junni mooy at mi foofu tam lu yéeme a jeexew daayira bi ñu taxawal xam ngeen ne Serigne Touba dafa arabu li mu njëkk a laaj ci jumaa bi li mu arabu Touba la ñaar fukk ak juróom-ñett dinaa leen wax benn secret tey boo xam ne yaakaar naa bëree bëri bi ñu taxawal liggéey bi genn lagan xam ngeen genn lagan lu mu doon soo bindee genn lu mu jox 53 soo bindee lagan. non ngeen ne ngeen ne cinquante mille la lay jox soo ko béree ngeen ne soo bindee lagan mu jox la cent muy cent cinquante mille loolu bi loolu lañ ko soxee te yàlla dogal nag sama sama xalaat bii bu gàtt gàtt gàtt gàtt ci la jéndew la boo xam ne soo la lay na awa baal ak mbooleem ñu ne àndal ñëpp rek yooyu sant bu baax ndax xam ne ni jot amul saa yu wootee mun bismillah waaw comme digal la ñu jéemanti rek tey xam ne sant nañ bu baax a baax niñ ko bëggee woon am nañ ci lu kawe suñu njort bu baax a baax xam naa buñ ko toppee woon nii danañ dem ba fajar te xam ne wax dëgg yàlla duñ doyal mukk ci maam Cheikh Issa seen latif waxtaan yi am na solo loolu sax sëñ Sidi ñu ngi lay siyaar bu baax. ci teewaay bi bu baax a baax te xam ne kilifa gu màgg màgg moo toog ak ñun muy doomi Serigne Souhaïbou bu jenn kon su bàyyee ay yitteem ñëw ànd kook ñun xam na ne lii ñuy def di ko defal maamam lu ko ñor la te it noonu loo koy ànd ak ñun tamit ca bis ba bu kilifa yi ñëwee muy ñi ñuy dara jaalee bis bi day nekk ci wàllu tibb yi mook Serigne Souhaïbou jaara ak ñu mel ne sëñ Diazaka ak ñu bari ci waa kër sëriñ bi di taxawu lépp ànd kook taalibe yi kon jenn ñu ngi leen sant bu baax te xam ne mbooloo mi amee na leen njukkal sëñ naar jenn mii tami ñu ngi koy sant moom Serigne Sidi Niis taxawaay bi rafet na ak lépp lu koy yaatal bu baax a baax bi sëñ Cheikh jógee rek ba ñëw wax leen ko ñoom it dañoo ànd ak moom lool gis nañ nga fay indi soxna maam jaara mu sëñ Muntaxa gis nga kàddu muy ku jàmbaare ci daayira maam jaara yi tey gis nga indi laatal ñu beneen soxna jaara muy soxna maam jaara Cissé kon xam naa ne yow moom da ngay dox ci Seydatuna Mariama jaaratullaahi tey loolu day dooleeku sa maam rek ndax maam Cheikh Issa Diène waajuram soxna Mariama Diop la tudd kon loolu gën a doolee sant rek gis nañ sa taxawaay bu baax a baax doo ko dégg lu bari waaye li muy lijjanti ci suuf daa bari lool moom moom moom sëñ naar mi di sant nag mboolem ñi nga xam ne tamit teewuñu bu baax sëñ Modou Dieng loolu ngay wax ci jenn nag laga nag yooyu ma xamal la jenn 53 la Seysa boo xoolee bi mu jébaloo ci sëñ Tuubaa 1895 ba 1948 jenn bokk adatee 53 ans la 53 ans yooyu la liggéeyal sëñ Tuubaa bi mu jébaloo ba mille 1948 53 la maa la wax li 444 ci lu ñu xam. te ko ca mooy tur saa Diène waaw kon loolu du hasard te nee na ko wàllu yu njëkk ak ak wu mujj kenn mësu koo am teg waxuma la di teg bët di si bëtam waaw maa la wax lii moom dafa yéem kon sëñ góor a waaw bismillah déet moom moo koy ak moom mii ci boppam na ndax man jëw naa ko ci ñëw de waaw sëñ ma bi ma ne ko ah, jël micro jël ah, nee na baal na ko waaw nee na la waaw kon kon mu yamandi foofu rek waaw kon baax ne kon daal ñi ngi sant bu baax a baax di sant mbooleem ñi ñu fi fekk ñëpp di ñaan bis bi ñu àgg ceeg jàmm am ci lu kawe suñu njort bu baax a baax a baax te xam ne mbooleem ni ko sëñ bi waxee sët sëñ Mor Jooja Fall bële ñi ngi lay sant bu baax sëñ bi li nga leeral dafa wér dañoo am mbind moo xamante ni sa maam moo ko bind ci maam Cheikh Issa muy sëñ moor Jooja Fall di sëñ moor Ngóone laa fal la fuuka ko wala maa fii ko yow mi ame bur yàlla yàlla na la aar aaral loo fi amee da ko woy woy woo xam ne xabu njëkk bi arab la koy def bi ci topp mu def ko wolof kon bi ngay wax loolu la suñu xel demaat ci loolu tagg na si Issa tagg yu kawe kawe waaw kon loolu ñu la koy feddali bu wax ay ay abyaat yu yaatu la loolu xam naa danañ ànd ak sëñ Mourou ñëwaat ba ci kër ga gën koo gëstoo ndax mag ñi ni ñu àndante woon dafa kawe lii sëñ kii waxaat sëñ Abdou Latif sëñ Ibrahima Diop almasar it noonu la demee ñu xam ne nag kon bis bi niñ ko tuddee maam si Anta borom Daaru Salaam sëñ Abdou Latif waxoon na ko maam si ànd ku ne xam ne ne moo ganale woon sëñ Touba bi mu jógee ci tukki bi sëñ Touba tamit bi mu agsee ba Touba bi indi ko Ndakaaru bi seex yëpp nekkee ci ci suuf di di ko di ko nekk ak taalibe yi maam si Anta la woolu moo ko fekku ci biir te sëñ Touba ab tubaab la yónni ne ko demal wool ma Sidil Muxtaar ba fa ñëwee mu waajal ko wax nañ ne sax war na ko foofu moom maam si Anta waajal ko ba sëñ Touba mën a génnaat ñëw kon kooku ku am tawféex la nga xool dëkkam bi sëñ Touba fa la ko gane ba mu ko fay gane it maam si Issa Dieng fa la ko fekk sëñ Tuubaa ba mu agsee daa yónni maam Thierno Ibrahima daa yónni maam Cheikh Issa ne ko dama wol ma Thierno Ibrahima mu dem jëli ko si maam Cheikh Issa bi muy dem dem na ba fas wi rëppatal muy demaat pour xooli pour jëli ji euh, borom daaru pour indi ko si sëñ Tuubaa borom daaru ba mu agsee la fa seere Cheikh Issa ak sëñ Mandumbe loolu histoire bind na ko téye na loxo sëñ bi euh, di tuur ay xéewal di tuur xéewal mu ne ko Issa ak Cheikh Mandumbe de tuddal ko ñu bari lépp luñ am jox nañ ma ko jàppal nañ ma ci njaboot gi loolu foofu Daaru Salaam la ko waxee kon mu nekk loo xamante ni lu rëy rëy la ki ñu ko tuddee day nekk dafa nekk jàmbaar nekk koo xamante ni waajuram wu jigéen moo ko fàggul lépp muy soxna Anta Ndiaye Mbacke ku xam dikkuk soxna jaara loolu ñu ko xam ñi xam-xam nañ kon ñu xam ne jàmbaar dëgg dëgg dëggal di ziar waa Daaru gépp bis bi nag nañ ko daa doxalee njëkk nañ ko tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf jërëjëf defar naa ko ci liggéey bi ki ñu ko njëkk tuddee mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina at bu njëkk ba ngi dëggam maam Cheikh jërëjëf laa ilaaha illallaah yaaram la wuute naag sa gan bamba ci xarnu bi ku weddi lii demal la mu yaaram la wuute naak sa gan Bamba ci xarnu bi gënili daam yi tuut xel manu ko di root mbaata li daa yu xóot lottal na mboolem xarnu bi lu baax du baax ba weesu mbaax ñu màggal maam Cheikh Issa Diène maam Cheikh Issa Diène baayu sëriñ Baara Diène jàmbaar jaawoon ca Diène la gën baayu sëriñ Basiiru xay mbayaar baayu sëriñ Yuusu mani jooy te noppee gunu maami sëriñ naar jenn naaru yaay sooda faal maami sëriñ naar jenn naaru yaay sooda i maami sëriñ basiiru jenn borom tabga maami sëriñ sooy bu jenn sama trondoo di bàyyi sëriñ seex président maami sëriñ maami sëriñ Abdou Kébé jenn di maami sëriñ naar jenn mu ndaw